Ourey Thiam Prera journaliste à la RTS bonjour Ourey. bonjour Pape Cheikh. surtout leen comme à chaque fois euh, ñu recevoir benn benn consoeur day day day def yeewu leen. alors euh, bonjour Ourey ñun ñëpp ay chroniqueur la ñu. waaw euh, mbokk yi bu ko jaawalee kénkiliba nag de. déedéet naan nañ kénkiliba bi ci fajar léegi dañuy dañuy tàmbale bëccëg bi kon tey ci yeewu leen euh, ma dalal sama chroniqueur culture Pape Cheikh Diallo. bonjour Bijou mi yor mode bi Kia mi yor euh, santé bi ak sama chroniqueur. Maymuna mi yor ñax yi Maymuna mi yor koom gi parce que Sénégal émergent la ñu wax. <laughs> alors voilà heureuse de vous retrouver aujourd'hui merci on est très ravi nga ñëw ci euh, yeewu leen bi ñu ngi lay gërëm bu baax journaliste euh, ca télévision nationale mais en même temps euh, tey dinañu waxtaan ci sargal laa ko mën a tuddee ah ci pont bi nga xamante ni defar nañ ko diggante Sénégal ak Asie rawatina dëkk bu ñu naan Indonésie demoon ngeen fa bu yàggul defe naa ñu ñu ñu ñu yëkkati leen fa yëkkati boo xamante ni il fallait que nous aussi ce matin qu'on en parle waaw Pape Cheikh jërëjëf parce que c'est vrai que nee nga journaliste la RTS actuellement dama fa demoon. Mhm. parce que yàlla dafa dogal man maay responsable service communication ak relation publique bu ministère euh, de la décentralisation comment c'est gouvernance locale euh, ñu demoon. Mhm. Indonésie mhm. participer si lu ñu naan sommet Afrique Asie. di daje mu rëy am amoon na lu ëpp 70 chefs d'État. yàlla dogal ñu dem bokkoon ci délégation sénégalaise bi médias yi ubbil ñu seen bunt kilifa yi ubbil ñu seen bunt parce que dafa am boo xam ne dañ ko porté. si benn kuréel bu tudd FFG di Freedom Fed Net Global. ñu bëgg a tabax diggante Asie ak Afrique. parce àddina ñu lay laal di xoos ba xam ñu da nga ñuul wala da ngay takk waa est-ce que ñuul bi dëgg la wala ngay dox si mbedd mi ñu lay interpeller ngay def ay 500 photos par jour mhm. ça veut dire que nit ñi xamante wuñu mhm. ñu jóg nag pour nit ñi gën a xamante parce que tey gis nañ ne Asie dafa war a inspirer Afrique mhm. Afrique mu ngi inspirer Asie parce que ñun dañ ne leen Afrique du Ebola kese Afrique du guerre kese Afrique du feebar kese Afrique du pauvreté kese ñun tamit ñu bëgg a wax africains yi ni Asie du terrorisme kese Asie du du liñ leen di wax nit ñu tuuti du ñooñu kese non mhm. mais dafa am ay réalité yoo xam ni continent yi ñu ngi dem mhm. dëkk yi ñu ngi dem peuple yi ñu ngi dem ku nekk nag yaa ngi toog sa ruq di liggéey sa liggéey di jéema a sa dëkk mhm. léegi lan moo tax munu ñu xamante tey ñu bëri dañ koy wax Europe jeex na mais nañu dem xool Malaisie ñu dem xool Indonésie ñu dem xool Singapour tey Singapour c'est le plus pays le plus cher au monde parce que genre dëkk yooyu noonu d'habitude suñu ay commerçant ñoo fay dem ay Indonésie euh, yenn yenn genre dëkk opportunité d'affaire parce que vraiment euh, tonton mag bu ñu wanee ci image yi dinañu gis ñun rencontre bu ñu fa def ak gouverneur bi mm-hmm. def ko ak waa kuréel boobu di effectif mais da mm-hmm. gis ni mm-hmm. fii par exemple da ngay ñëw chaîne télé yi ubbi la seen bunt ne la ñun dañu gën a bëgg xam Afrique dañu gën a bëgg xam yéen lan moo leen tax a jóg ñu ne leen ñun xam ngeen lan lañ bëgg partenariat gagnant gagnant dañu bëgg li ngeen xam ak li ñu xam ñu boole ko tabax pont de fraternité et de solidarité buy mën a promouvoir suñu développement dëkk yi que tu as été reçu dans presque toutes les grandes chaînes de télé yu nekk foofu Indonésie comme on voit euh, sur ces images di expliquer lëkkaloo euh, gi ñu war a lëkkaloo amul der bu ñuul mm. amul der bu weex mm-hmm. ñun ñëpp on est pareil et bañ a suñu bopp parce que tey ñoom li ñu gëm mooy nee nañ partenariat culturel bëggatuñu ko parce que dañ ne mm-hmm. ay sister city mooy ay villes jumelées ñoom dañ ne dépassé nañ ko et vraiment ñun bi ñuy dem euh, suñu ministre El Hadj Omar Youm bi mu ñuy yebal tamit la ñu sant nañu dem leen xool loo xam ne dañ Sénégal da ciy am njëriñ mm-hmm. la ñu bëgg wàllu business connection mhm. te ñoom looloo leen intéressé nee nañu mhm. médias intéressé na leen parce que bëgg nañu lëkkaloo ak ay médias fii mhm. agriculture bi intéressé na leen li nga xam ne mooy éducation bi parce que dañuy maye ay bourses d'études ñu bëri xamuñu ko nekkatul rek Canada wala France c'est ça dañuy dem Chine après si dem bi ngeen fa dem ak visite yi ngeen visité est que am na ay base yu ñu teg yoo xamante dina jur euh, ëllëg ay euh, partenariat comme ni ñu ko bëggee defal. déjà ñun avant ñuy dem rek xam nga FFJ dafa nekk kuréel boo xam ne actuellement c'est c'est la diplomatie des peuples lay promouvoir avant ñuy dem déjà ñoom ñëwoon nañu fi bi ñu ñëwee dañu dem centre Aminata Mbaye bi nga xam ne mooy centre enfant déficient intellectuel yi mm-hmm. ñoom déjà kuréel gi rek. personnellement ñoom dañu ne ils vont accompagner onze enfants de ce centre ba ba ñuy pare seen jàng. Mhm. déjà chaque année xale bu nekk ça coûte huit cent mille mais ñoom dañuy jël engagement di ko def. Mhm. ñuy ñëw di def ci orphelinat yi demoon nañ ay pouponnière Médina dem nañ ci yu bëri yoo xam ne. Mhm. socialement ñu ngi koy def ñu pare nag ne leen léegi il faut ngeen connecté wu ak gouvernement bi parce que nit buy def dara. il faut kilifa yi xam ne yaa ngi def lu baax. ñoom it ñu mën a def partenariat au plan ci la ñu ànd ak ambassadeur bi mu ñëw ne léegi ñoom pare nañu. pour au niveau des des des euh, des relations d'affaires mhm. mooy tey homme investisseur indonésien yi pare mhm. nañu pour ñëw Sénégal mhm. investisseur sénégalais yi tamit ñu ngi leen di invité ñu dem foofu parce que xam nga Sénégal dafa xaw a ragal da ngay ñëw ne ko fii am na opportunité muy toog di xool ku dem réussir pour moom mu mën a dem alors li ñu leen di wax mooy nañu dem xool c'est un c'est un c'est un pays en plein développement est-ce que est-ce que euh, au niveau de suñu ay autorités maanaam yéen jël ngeen ay matuwaay euh, yu baax pour euh, ñoom

gën a wóolu sa bopp gën a xam ne tamit yow ta vie a une valeur que tey yow yaa si war a génnee sa bopp et vraiment tout ce qui est formalité ñoom dañ ko yombal dafa jaar yoon nag mhm. dafa jaar yoon nee naa ku bëgg immigration clandestine jarul nga fay dem ndax boo amul këyit doo mën a toog ci dëkk ba mhm. mais ku bëgg liggéeyi mhm. amul problème parce que tout simplement c'est pas difficile yëpp bu jaaree yoon li ngay defi jaar yoon li ngay doxi jaar yoon dañ la Euh, di déposer di di di di dem. parce que mënuñoo tere xale yi ñu tukki quand même ah. eh, y Cheikh si li nga wax sànq si laay euh, dellu si parce que xam nga sànq da nga tudd comme Singapour Singapour nekk euh, rapport doing business bi mooy pays bi nekk au sommet du classement et tout mhm. donc. en tant que état est que am na dispositif boo xamante ni teg ngeen ko par exemple benn modèle économique bu ngeen xool foofu pour reproduire ko au Sénégal pour nit yi mën a dem parce que am na ñoo xam peut-être bëgg nañ dem mais amuñu les moyens dem mais est que am na foofu ay affaires yu ngeen fa gis sur le plan économique yoo xamante ni vous pensez que ça peut être profitable au Sénégal. c'est que Indonésie li ci Sénégal mën a jàng dafa bëri. Mhm. déjà dëkk la xam ne da doon day am inondation mhm. mais ñoom dañu maîtriser affaire dëkk la boo xam ne ay îles cinquante millions d' habitants. seen capital moo ëpp population sénégalaise ba mu daj. mais le fait que ñu maîtriser seen développement maîtriser yenn affaires yi ba nga xam ne ñoom tey. ñun li ñuy wax ay couverture maladie universelle ay carte de santé ay kii ñoom dañ ko maîtriser. parce que tout simplement nee tey képp koo xam ne da ngay dox ci seen biir dëkk dañu war a def de telle sorte que tu puisses t'identifier à l' état ñoom état central bi nag pouvoir délocaliser toppatoo éducation mooy toppatoo transport et daf siy def ay jéego yu am solo yoo xam ne chaque citoyen peut sentir lu nga xam ne loolu la ko état wam di indi maintenant am na loo xam ne tey ñun Sénégal dañuy wax plan Sénégal émergent mm-hmm. mais dëkk yooyu tey bu ñuy lim dëkk émergent yi ñooñu la ñuy wax on parle de Singapour on parle de l'Indonésie on parle de la Malaisie et je pense que tey Mahathir bi muy développé Malaisie ak finance islamique bi ñun Sénégal ñu ngi ñu ngi ci voie boobu di wax wàllu sukuk mm-hmm. di wax wàllu euh, financement vert finance financement innovant je pense que loolu yëpp ay expérience la yoo xam ne mën nañ ci jàng par exemple wàllu média yi ñun tey dañuy glorifié wu naan Sénégal dañu am lan ay une vingtaine de chaînes de télé ñoom ils sont à 220 chaînes de télévision et puis ñun dañuy wax quand fait un direct on est content dañ naan dañuy def live en live sur la TFM sur la RTS mais ñooñu live c'est du matin au soir mm. donc da ngay gis chaîne télé boo xam ne 24 bëri yoo xam ne vraiment dama ko fi gis yéene naa nit yi ñu dem gëstu moo tax gën a xam et vraiment ñun on est prêt à travers FFJ à accompagner tous ceux qui veulent mhm. se rapprocher de moo tax tey nga ñëw ci yeewu leen bi pour partager ko ak euh, sénégalais yi et c'est intéressant il faut voyager il faut sortir parce que tukki dafa am solo Houreye Thiam Préra vous restez avec nous sur le plateau puisqu'on va continuer ñun itam euh, li ñu tax a jóg comme euh, lundi bu jot ci télévision voilà Pape Cheikh comme ni ko waxee on va parler du mariage précoce wala mariage des enfants léegi nag demoon nañu seeti li nga xamante ni mooy euh, association des juristes sénégalaises ak madame Camara déjà duñ def lu dul euh, déglu ko mu wax ñu lan la yoon wax ci mariage des enfants ak convention yi nga xamante ni moom lañ ci tëral. musiba mariage précoce ñu koy wax léegi mariage des enfants nekk luñu faral di dégg ci Sénégal tax ñu def ci gëstu. dégg ñu ne mariage précoce léegi sax mariage des enfants la ñuy gën wax ñun ñu nekk ci société civile bi ak système onusien bi mooy mariage boo xamante ni ñi ñaar ñi seq sëy bi amuñu 18 ans loolu définition boobu mooy définition bi nga xam ne moom la convention internationale yi wax. muy convention bi ci ëpp important mooy charte bi ci gën a ëpp importance mooy convention internationale relative aux droits de l'enfant mooy charte bi nga xam ne bitim réew bitim réew lañ ko jëlee mu nekk charte boo xam ne mooy lijjanti lépp jëm ci wàllu xale am na tamit beneen charte boo xam ne biir Afrique la soqeekoo muy charte africaine des droits et du de l'enfant muy charte boo xam ne tamit dafa wax ci biir que ne képp koo xam ne am nga lu gën a tuuti 18 ans xale nga donc pour amee sëy boo xamante ne ñaar ñi amuñu 18 ans loolu la ñu wooyee mariage mariage précoce mariage des enfants mooy sëyu xale. respect ak application loi yi jëm ci loolu nag gouvernement du Sénégal ak CEDEAO ñoo ko sëkk. Ah, il faut ñu xam ne Sénégal dafa ratifié ñaari charte yooyu ma la wax sànq muy convention internationale muy charte africaine ci ñaari charte yooyu tamit dañoo tëral ne que ne xale boo xamante ni amagoo 18 ans. waroo sëy te charte yooyu dafa ne tamit dëkk bi dem ba signé ko ratifié ko bu dellu see ci dëkkam dafa war a fexe ba xale yooyu bañ a sëy fexe tamit ba nu mu prévoir yoon dal ci kaw ñi nga xamante ni ñooy def loolu donc tey jii ñu dellu si waat rek pour wax ne que ne Sénégal tey jii am na foo xam ne def na fa lu mu fa warul def mooy ratifié na convention bu am importance ratifié na charte bu am importance bi mu yegg seen dëkkam charte yooyu tey jii dañu bokk ci li ñuy woowee bloc de constitutionnalité donc ñoom nekk ci ci kaw loi Sénégal donc charte yooyu la ñu war a appliquer Sénégal ba nga xamante ne xale benn xale waratu fay sëy donc loolu la ñu jàpp ne que ne Sénégal loolu la war a mën a def parce que boo seetee tey jii loi wu Sénégal code Sénégal dafa ne xale l'âge âge égal mariage mooy 16 ans mooy maanaam xale bu jigéen bu dee jigéen la ba bu amee 16 ans mën na sëy loolu ñu jàpp ne méngoowul ak li nga xamante ne moom la Sénégal signé bitim réew li mu signé bitim réew tey jii moo nekk ci kaw li ñu woowee loi nationale yi ça veut dire que tey jii charte yi ma wax sànq charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant convention internationale ñooñu nga xam ne dañuy tere xale bu am lu gën a tuuti 18 a a appliquer a méngoo ak lu wu dëkkam. code pénal sénégalais dara la prévoir yoon dina dal ci kaw ki nga xamante ni dafa seq sëy ak xale bu xamante ni am na lu gën a tuuti 13 ans loolu tamit mu bokk ci lu ñuy métti Sénégal parce que méngoowul sax ak li code de la famille wax ndax bu code de la famille nee xale boo xamante ni lu gën a tuuti 16 ans warul sëy. donc nan la ñu mën a tamit tourné wu nekk ne xale boo xam ne ku am ku seq xale sëy bu am moins de 13 rek nga war a nga war a mën a la ñu war a mën a la yoon a a daal sa kaw xam nga loolu tamit contradiction am na fa te contradiction yooyu tamit mi ngi sooqeekoo ci li Sénégal bañ a ñëw harmoniser la mu signé bitim réew ak li xew ci biir Sénégal charte du wax dëkk bu nekk yan sanction ngay prévoir charte danaan dëkk bu nekk boo demee ci sa dëkk yow yaa xam sa dëkk nu mu tëddee neen li ma la laaj mooy boo demee sa dëkk neel que ne xale bu am lu gën tuuti 18 ans warul sëy prévoir la tamit yoon dal ci kaw ñi nga xamante ni ñoo naan a jéggi loolu nga wax parce que dafa li ñu wooyee ci biir droit souveraineté donc état bu nekk ci sa biir yaay xool ne que ne man ah kii di di mën état bi mën na ne bu dee Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire mën na ne man ratifié naa temps de euh, euh, weeru kaso laay laay teg nit ki wala temps amende laay teg nit ki Sénégal ne man tamit temps de euh, kaso laay def sans temps de de de laa lay teg loolu mooy loo xamante ne dañ ko bàyyi état bi ci wàllum droit pénal mooy loo xamante ne yoon day dal sa kaw il faut mu am loi bu ko prévoir pour que ñu mun ko appliquer mu nekkoon euh, Ndeye Maguette Mbaye Camara c'est ça. Euh, voilà moom juriste la. moom juriste la Pape Cheikh comme ni mu ñu ko expliqué en fait xam nga à travers le monde y a millions de filles yoo xamante ni dañ leen a marié avant 18 ans. d'accord te si biir loolu Sénégal 33 pour cent des femmes yi nga xam ne am nañu entre 20 et 24 ans. Mhm. elles se sont mariées avant 18 ans. maintenant mariage précoce nag nekkul si jigéen rek la même góor bi nga xamante ni amagul 18 ans mu marié wu mariage précoce. parce que d'habitude ci jigéen rek def nañu ko mariage précoce. waaw mais parce que euh, kii nga xam ne problème yi nga xam ne moom la mun a indi si jigéen les visibles maanaam mooy mortalité bi au niveau de la maternité mhm. ak li nga xamante ni mooy mutilation génitale yi nga ci mën a am bu fekkee nga nekk xale trop nga ñu teel a consommer sa mariage et mhm. tout mhm. voilà donc mais ñoom nag problème bi ñu posé mooy ni que xam nga Sénégal dafa signé convention internationale ak charte africaine donc si convention boobu dañ ni mariage des enfants mooy ñi nga xam dañoo marié wu avant 18 ans mais bi nga xamante ni loolu euh, c'est au niveau international ak au niveau de la CEDEAO loolu Sénégal da koo signé. Mhm. léegi bi mu ko signé bi ñuy ñëwee ñun si suñu droit dañu ni mariage légal na à partir de 16 ans. donc dafa donc on est en déphasage avec la convention avec la convention mhm. parce que ñun Sénégal à partir de 16 nit mun na marié wu. léegi loolu nag dafay tax dafay am benn confusion boo xam ne daf koy indi si xale yi nga xamante ne ñu ngi leen di marié te peut-être peut-être ñoom bëgguñu marié wu. Mhm. wala jàpp nañ ni tollaguñ si sëy wala dañu bëgg a Ah, te boo signé convention internationale moom mooy primer ci sa loi nationale. Mm-hmm. tu donc loolu mooy problème bi nga xamante ne ñoom ñooy juristes sénégalais yi euh, teg nañ ko sur la table. Mm-hmm. maintenant euh, si kaw marié avant 16 euh, boobu nga xamante ne permettre ñu ko consommation mariage aussi dafa am benn période boo xam ne si koy mën a def. Mm-hmm. donc su fekkee da nga xale avant 13 ans bu amagul 13 ans waroo consommer mariage. déjà sax bu amul 13 ans warul marié mais su fekkee nag marié nga ko Euh, avant date boobu li ñu si mun def amul euh, peine physique boo xamante ne daf si am te loolu ñoom tamit dañ ko dañ ko euh, dañ ko ñaawlu parce que dañ ni boo nee nit warul may may marier nit avant 16 ans donc bu ko marier avant 16 ans war na am peine bu ñu prévoir maintenant charte internationale yooyu na boo ko signé ñoom dañ naan la réprimer ko neel baaxul mais duñ la imposer benn condamnation donc yow yaay xool par rapport ak sa constitution ak par rapport ak say loi wu dëkk nga ne ah ku ko def kat ñun au niveau au plan prévoir nañ mais est-ce que est-ce takk xale bi rek la ñuy waxal ci peine yi wala parents yi tamit je pense que am nañ ci part de responsabilité parce que ñoom ñoo jur seen doom xam ban âge la ba pare nangu ko maye. nangu ko maye di takk xale je me dis sa jabar war nga a xam âge ki nga xamante ni parce que comme ni ma ko waxee mariage bi en tant que tel amul benn peine boo na ci am lenn moo ci mën am bu ñu ko ko dénoncé dañuy annuler mariage bi. maintenant su fekkee consommation foofu la ñuy commencé ki nga xam ne da koo consommé ko tëj te bu ñu koy tëj tamit ça dépend yi Euh, âge xale bi ak dommage yi nga xamante ne am na ci. même bu fekkee xale bi d'accord na xale kenn waru ko consommer quand même. mais a am na plus de 18 mu euh, marié wu lan la ci yoon wax. Euh, bu fekkee ne xale bi amagul marié wu na avant 13 ans mariage bu baaxul parce que Sénégal ñoom 16 ans la ñu wax te 16 ans boobu sax warul baax parce que ñoom convention internationale dañ ni 18 ans la xale war a marié parce que xam nga ñu ngi jël ay xaalis yu bëri du ko dugal ci lute contre mortalité euh, maternelle euh, ak li nga xamante ni mooy. kii maladie yeneen yi nga xamante ne partie génitaux yi mm-hmm. te pour pour ñoom nee bu fekkoon loolu interdiroon nañ ko mm-hmm. wala ñu respecté loi yooyu peut xaalis yu ñuy dugal foofu yëpp du ko jar parce que bii nii mooy entraîner yeneen yi nga xamante ne mooy yeneen problème yi mais nag mais mun a je am na benn problème boo xam ne tamit dafa am mooy problème état civil mm-hmm. xam nga tey ñu bëri Sénégal di gis euh, seet ko ci jànq yi nekk ci kër yi boo même plus profonde je pense que loolu tamit lu jar a xoolaat la moo tax ñun yenn saa yi ñu waxtaanee ay sujet ci yeewu leen bi euh, ñun dañuy foog ni euh, xam nañu lépp mën nañu lépp alors que pourtant voilà boo demee ci kaw gi ñoom ñu ngi xëy dañu seetaan ci mm. télé bi mm. dañuy dañuy dañuy wax loo xam ne ñun dañu koy jàppee terre à terre mm-hmm. et pourtant ñu bëri dañu koy dund ci yenn ci yenn dund parce koy dund par exemple euh, à Kolda 68 pour cent ah ah ñi nga xamante ne dañoo marié am nañ moins de 18 ans mm-hmm. su fekkee ay zone yu mel ni Tamba ak Matam 50 pour cent ñi nga xam ne dañ fay marié wu ah yëpp egguñu 18 ah ah ans. mais parce que culturellement. Mhm. ñooñu boo dépassé loolu on te considère mhm. kon bu xale jigéen Dakar yi ay maam maam fii. <laughs> <laughs> mais xam après jamono jamono yi ñoo bokk jamono bu njëkkaan suñu way jur dañ leen di teel a maye ñu jur ci njaboot gu barkeel seeni borom kër toppatoo leen peut-être ci ci aada la waaye léegi euh, lekk yi bokkatul climat bi bokkatul produit yi ñu jëfandikoo bokkatul mentalité yi bokkul parce que avant jigéen da doon toog ci kër gi rek yar xale koy def mais jigéen bu ci nekk yaa ngi jàng bëgg nga liggéey bëgg nga développé mais Pape Cheikh tamit boo koy xool tamit zone a bëri ah ah ah yooyu tamit moo gën a bëri xale yi nga xamante ne dañuy dem ba xàmmelu ko daw mhm. donc yooyu noonu yëpp c'est des fléaux yoo xamante ne dafay nekk mhm. ay affaires yuy découler de ça donc au lieu de maintenant mariage précoce c'est le mariage des enfants parce que avant 18 ans tu considéré comme un mhm. wala une enfant donc mariage des enfants juste ma ñëw si pen yi mhm. donc su fekkee ni que da nga consommer mariage ak xale boo xamante ni amagul 13 ans mhm. donc yaa ngi encourir entre 2 à 5 ans de prison ferme voilà léegi nag pour ki ko consommé. ah d'accord d'accord léegi nag su fekkee si euh, biir consommation mariage bu xale bi di si jëlee feebar. Mhm. wala mu jëlee si infirmité. que ça soit sax temporaire tu risques entre cinq à dix ans de prison. donc je pense que loolu nit yi war nañ ci mën a bàyyi xel. parce que comme ni ñu koy waxee. xam sa àq ak yelleef pour mieux vivre en société Pape Cheikh. important merci Maymouna comme chaque lundi soit mu waxtaanee àq ak yelleef droit wala mu waxtaanee lu jëm ci wàllu koom euh, loolu defe naa euh, mën nañ ci gën a sori mais prochainement bu ko defee euh, famille yi nga xamante ni ñoo am ay xale di leen maye ñu mën a gën moytu. par rapport ak daan yi nga xamante ni. yoon teg na leen ko. ñu ngi leen di fàttali ne ba léegi mën ngeen a bokk ci yeewu leen bi fii ba 10 heures 88 628 22 22 wala 88 628 04 on va retrouver tout de suite Alfie ñu ngi àndandoo nag ak euh, beurre Sofia Sofia mi ñu àndal mooy bër bi ci vitamine yu bëri alors Alfie tey da nga ñu indil croquant croquette croquant à la noix de coco eh tu te rappelles de croquette naar bu ndaw croquette <laughs> mën nga ko croquette il tontu ba lan lañ doon dox bi ñu nekkee xale Alfie croquette <laughs> waxaat tontu ba croquette. wax na tontu naa ba pare. da ngay continuer jeu bi loolu la da ngay wax. merci toi tu comprends croquette. bon comme mën nga ko yow bijou croquette naax bu ndaw croquette naax bu ndaw croquette naax bu ndaw croquette <laughs> ah, léegi looy ree continue <laughs> ñun bi ñu nekkee xale doon foowee quoi ko ne croquette rek mu ne mu ne la naax bu ndaw <laughs> croquette à la noix de coco c'est des croquants la hmm. ñu ne croquant uh-huh. mooy euh, loo xamante ne soo ko day am euh, lu croustillant maanaam euh, boo koy lekk mu naan kuruj kuruj kuruj kuruj kuruj donc lu koy lu koy composé Pape uh-huh. Sofia bi nga xamante ni toujours moom la ñu moo ñu gunge ci cuisine bi mhm. riche en vitamine A et E Pape Cheikh xam nga nee naa la saa su ne su demul ci beurre bi rek suba si moom la ñuy def suñu mburu ndekkee ko uh-huh. mhm. donc euh, dañ fi am beurre ak suukar moom la ñu uh-huh. mélangé nii ci saladier bi uh-huh. donc am nañ fi noix de coco donc moo ñuy servir comme bu ñuy def panure euh, euh, chapelure donc bu ñu defee suñu ay boulettes ba pare noix de coco bi lañ koy lañ koy enrobé donc fii am nañ fi ay noix fii ma am fi ay amande Pape Cheikh damay jël noix yi mixé ko. Mhm. parce que day dem ci biir ci pat bi. donc noix yi très riche en fibres Pape mhm. buñ koy fàtte. Mhm. allez fermez vos oreilles. du yàgg. lii moo koy moo koy wol. moo koy wol. d'accord donc gis nga buñ ko buñ ko mixé. koy def comme pëndëx c'est ça ah, dafay mel ni genre lu xaw a maanaam lu xaw a compact donc comme que am nañ fi puisque am nañ fi amande mhm. donc soxlawul ñu ciy def noix bi yëpp parce que 60 grammes rek lañ ci soxla donc beurre bi dafa neex waa mhm. donc daf lay xaw a jox euh, odoru gerte waaw comme gerte bu ñu sax comme gerte bu xetu ci gadege boo ko yóbboo ci machine wolukaay bi tout à fait à lii mooy li machine wolukaay la ah. waaw waaw mul mul machine wolukaay la parce que comme bi nga doon wax keroog mhm. donc suñu jëlee suñu beurre bi ak euh, suukar bi mélangé ko ba suukar bi say Pape Cheikh. waaw donc dañ ciy def tuuti farine. d'accord. donc fi am naa fi ay zeste d'orange yoo xamante ni ci suba dama ko baxal. Mhm. maanaam ci ñetti ndox boo baxalee ba première cuisson bi. nga tuur ndox bi defaat ci beneen ndox. def ko ba muy ñetti yoon nga xam ne da ngay dindi bi nekk ci orange bi. Mhm. ci xolitu orange bi pour ñu mën ko consommer. Mhm. parce que vitamine bi yëpp sooy sooy xool Pape Cheikh ci xolit bi lay concentré wu. moo tax de temps en temps baax na ñu koy utiliser ci biir lekk yi parce que daf ci da koy parfumer déjà ba pare dolli ci ay ay vitamines donc dañuy jël farine bi mhm. jël sunu amande ak noix bi ñu mixé léegi def ko si biir jaxase ko quoi waaw def ko ci biir fat bi en même temps fàttaliwaat leen ni mën ngeen a bokk ci yeewu leen bi dañu ngi leen di xaar téléphone bi ibbi nañu ko depuis 6h45 du matin pour ñi bëgg euh, ñu euh, jàppale leen jox leen dépense euh, bégal leen teral leen ba ngeen kontaan ki njëkk a dugg sànq bi 7h30 jotee jox nañu ko 25000 ki ci topp xamuñu kan lay doon mais yéen dañuy xaar ñaar la ñuy boole li tubaab naan utile ak agréable yi leen di bégal ak yi leen di jëriñ moo tax boo yeewoo da ngay da ngay bégee ak yeewu leen bi fii ba 10h ñu àndal alors poste one euh, xam ngeen ni moom moo fi ne ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu yónnee wala jot xaalis alors ak poste one 200 francs maanaam ñeent fukk dong ngeen di fay bu dee da ngeen di yónnee xaalis poste one nag mu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média ñu ngi ànd itam ak Orange alors Orange mu ngi leen jagleel service bi ñu tuddee Jazz 111 Jazz alors bu ngeen bësee Jazz 111 Jazz euh, ci seeni téléphone portable mën ngeen a découvrir service futé euh, yu Orange bëri na ci loo xamante ni Orange daf leen jagleel ci service fuité yi nga xamante ni léegi euh, dañu ko gën a yombal euh, client yi par exemple euh, mën ngeen dem ci catégorie yu am solo ak ñoom jamono classique waa jamono school jamono Dóor waar alors catégorie pour am ay information bu ngeen defee jazz 111 jazz lépp lu jëm ci Dalton di ngeen ko ci fekk lépp lu jëm ci Facebook bi ngeen di utiliser seen téléphone portable mën ngeen ko ci fekk alors bu fekkee da ngeen bëgg am ay information sport ak Orange Football Club mën ngeen def 9 dièse 111 dièse bu ngeen bëggee itam xam ay information yu leen di jëriñ yi ñu tuddee info utile mën ngeen ko itam fekk ci dièse 111 dièse bu fekkee itam da ngeen bëgg am lépp lu jëm ci wàllu éducation te orange jagleel leen ko mën ngeen ko fekk ci dièse 111 dièse c'est-à-dire portail la boo xamante ni lépp lañ ci def pour gën ko yombal client yi alors orange ci boppam mu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média fi mu tollu tembe ne mën nga jëriñoo ci li leen orange jagleel orange vous dit bonne semaine le travail donc Alfi nga te say xolitu orange c'est ça. Ah, xam nga orange moom foog ñu def ko ci Pape Cheikh. orange kay ñàkk ko cee def. wóorul waaw ñàkk joxe bonne sa portail boobu xanaa amul cuisine. <laughs> si si si a tout dedans ah <laughs> y' a toutes les infos utiles <laughs> numéro Alfi sax mu ngi ci. waaw euh, mu ngi ci euh, dièse 111 dièse. donc Pape Cheikh dañuy bu ñu amee mélange bu mel ni uh-huh. donc dañuy jël euh, maanaam def ay boulettes. Uh-huh. yoo xamante ne dama koy tremper ci biir jus d'orange bi ma amee sànq fi uh-huh. donc su ma ko defee ci biir jus d'orange ba pare. Mhm. enroulé ko ci biir euh, coco bi. Mhm. teg ko ci plat bi nga xamante ni mooy dem ci four bi Pape Cheikh. enfourné ko. pandant vingt jàpp vingt cinq minutes. d'accord donc su génnee. Mhm. soo koy togg da gis dafay xaw a tàcc. mais du ci dara su ko génnee nag bàyyi ko à l'air li ba mu wow. Ah. jox la effet croquant boobu ñu wax. d'accord donc le temps que ngay yeggali rek ma trempé leen. jeex na. Aïcha Ourey Thiam Préra Ourey kontaan nañu on va te laisser ndax xam naa ne amuloo benn jot il faut juste rappeler que bokk nga ci jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu a nekk voilé di génn ci télé euh, te ci période bi nga koy def euh, c'était pas évident du tout on ne voyait jamais de femme di présenter soit journal wala def ay magazine ci télé euh, nekk femme voilée boobu ba tey yaa ngi ko gëm ñu dem ba léegi presque jigéen ñu bëri ñu ngi nekk ay femmes voilées ci ay télé ça a été dur ci période boobu noonu ñu ngi koy fàttaliku. été le commencer moo gën a jafe xam nga liñ naan janax ji njëkk génn dañ naan euh, janax jaa ngi waaye jeneen ju génn dañ naan jeneen a ngi donc je pense que tàmbali bi en 2006 moo gënoon a metti mais quand même heureusement parce que tamit xam nga médias yi dafa am ñoo xam ne dañuy sentir mhm. loo xam ne phénomène médiatique lay doon mhm. xam naa bi ñoo tàmbalee affaire bi nit ñi laajte wax gis ni Sénégalais yi tamit bëggoon nañ ko vraiment doon ñu encouragé doon mhm. woo suñu ay kilifa nag ci télé ba di leen encouragé affaire bi gën a dalal xel ñu gis ni jàng li ñeneen ñi jàng comme li may wax si hijab day bi man leen li nit ñi jàng la ñu jàng sesti mm-hmm. mm-hmm. la ñu génnee mm-hmm. am suñu ay diplôme ñëw ci télé bi tamit yàlla defal ñu fa sutura la ñu def tojuñu fa kaas yàquñu fa kii nag ba xëy tàggatoog jàmm dem defi leneen donc loolu tamit dañ koy sante suñu borom mais tamit wane ni sénégalais yi dañu gëm leen sénégal dafa gëm boppam ñun tey bi affaire bi amee nit ñi naan waaw culture arabe mais ku ñu gis xam ne ñun duñu ay arabe ay sénégalais lañu ah ah et puis tey du voile Ndour mi nga xam ni dama ñëw waxtaan ak moom rek mu teel a sentir ni uh-huh. loolu daf si war a jàpp TFM uh-huh. daf ko war a accompagner ñu bëgg fi def événement bu rëy ren mm-hmm. pour wane ni gis nga Dakar uh-huh. hub de la mode islamique lañ ko bëgg a positionner te on va y arriver incha allah ñun ak yéen bu soobee merci en tout cas je rappelle que yow yaa yore euh, service communication euh, euh, am solo yoo xamante ne on a regardé un peu les images mm-hmm. et j'espère que xale yi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a dem Indonésie mën na nañu peut-être rapproché wu ci euh, bu maître Oumar Youm. non baa ngi fi. Ah, ambassade bu Indonésie mi ngi fi vraiment ambassadeur bi nekk ku baax tamit mm-hmm. kuy jàppale étudiants sénégal yi. kuy mm-hmm. jàppale om d'affaires yi. Mm-hmm. képp daal koo xam ne liggéey moo la fa yóbbu wala jàng wala soxla. fulla ak fayda boo fa demee vraiment ñoom tamit ñu ngi fii ubbeeku ba dee amuñu si benn problème. na mbir mi jaar yoon nit ñi tamit war a xam ne visa kenn du ko jënd dañ koy ñaan. ñu may la ko vraiment nga dem liggéeyi opportunité yaa ngi

temps que ñuy def connexion bi xaar ma ma ñëw damay récupérer ji xaalis fa la ko bàyyi wallaahi dem kookoo nga fa ba tey 4 millions 500 quand même on peut faire beaucoup de choses ah avec ah c'est sûr mm. merci Ourey Thiam Préra ñu bàyyi la nga daw àggali sa liggéey et puis nga nuyul ñu maître Omar Youm gis nañu li ngeen def euh, pour xale yi ci réew mi on va parler de ski euh, yi cartonné fan yi surtout ak bijou comme on le fait euh, ci bis yi tey am na ay rob yu bëri yu ma gis fan yi ci internet bi ku nekk sol rob yoo xamante ni comme suñu xale yu jigéen ñi dañoo ñamee ay robe rek est-ce que nit yi robe leen ba xam li ñuy wax robe mais avant robe yi <laughs> Pape Cheikh on de marinière comme ni ma la ko waxee tey ci suba mhm. pas marinière yi ñu tàmm xam fii Sénégal yi suñu maam yi doon sol mais marinière bi nga xamante moom la matelot yi doon sol en France. Mhm. dans les années bi ñu ko bi ñu ko defee euh, tenue pour matelot yi dem géej euh, am na ñuy raconter anecdote ne c'est pour li liñ koy defoon c'était pour que bu nit ki koy waddee ci biir géej gi. Mhm. ñu teel la mun a xàmmee teel la mun a génnee. Euh, marinière boobu dafa dem ba nekk accessoire de mode parce que en 1910. Coco Chanel daf ko jël parce que période boobu période grande guerre la Coco Chanel moom ngeen am ci photo bi noonu période grande guerre la xaalis amatul woon mënatul woon jënd tissu yu cher parce que nit ñi doon ñu ko woon jënd donc mu jël benn jersey en coton. Euh, rayure bleu blanc def ci euh, benn marinière lancé ko tendance ñëpp ñëw di ko jënd donc ñu adopté ko mais Jean Paul Gaultier am nañ ko ci photo yi moom moo ko jël gën ko def star parce que tout le temps ci ay défilém ci ay défilém daf ko doon daf ko doon jël def ko pièce maîtresse ci euh, ci ci création bi muy def tout le temps da nga koy gis moom buy ñëw sax ci kaw pëjëm bi marinière lay sol donc affaire bi nag créateur yu bëri jël ko di ko def comme ni ñu ko amee ci beneen photo yi mu ñu vulgariser ko ci défilé yëpp finalement ñu koy def ay pull di ko def robe di ko def euh, accessoire bu nekk c'est très beau mun nañ ko ah ça non ça me rappelle quelqu'un en fait. bijoux xanaa nekk l'homme de la marinière. l'homme de la marinière parce que moom marinière c'est sa marque de fabrique. tout le temps moom lay sol foo leen ko gis défilé bu présenter modèle yi ba pare buy génn moom lay génnee sol ko donc marinière ñu dem ba finalement même boutique yu ndaw yi sax dañ koy defar donc moom laa sol ni tey mu nekk accessoire bu yomba sol parce que boo ko boolee ak jean mun nga ci teg veste mun nga ci teg lu la neex. ça ah mooy buy tombé. voilà non t-shirt. t bi trois quarts la war a nekk. Uh-huh. ba pare rayure euh, bleu blanc normalement. horizontal 21 yu weex la war a am ak horizontal surtout. 21 hmm. yu weex la war a am ak 14 yu bleu. après y en a qui respectent y en a qui pas yomb na sol mun nga ko booleeg jean teg ci sa veste wala nga boole ci ay accessoires yu flashy comme ni ñu ko amee ci photo bi rouge mooy gën a ànd ak moom d'ailleurs man ak yaa tey dañu ñëw tey suba man ko pourquoi t'es habillé comme moi parce que ñun ñaar ñëpp dañ sol euh, même couleur yi boole ko ak rouge donc c'est très très facile à porter te ku nekk boo nekkee mode c'est une pièce à avoir absolument ci sa xamante chaque année day am Museum of Art de New York euh, dañ ci wane ku nekk solo bi bi dàq ci euh, ci ci année bi et chaque année dañuy joxe thème robe yi nga doon wax sànq ci la ñuy ñëw Pape Cheikh parce que ren thème bi Chine la donc ku ci nekk da nga wane Chine lan la lan la la inspiré mais robe yi ñu gën a marqué mooy bu Kim Kardashian bu J ak bu Beyoncé Kim Ka Rihanna surtout ñu commencé Kim Kardashian moom blanc la def transparent Jennifer Lopez aussi rouge transparent presque même coupe ñoom ñëpp mais Jennifer Lopez transparence am moo gën a jaaxal nit ñi parce que ci côté bi on voyait presque tout donc disons que l'essentiel rek lañ nëbb ci kanam ak ci ginnaaw li ci des yëpp dañ koy wane parce que tout suba transparent bi ñoom ñëpp dañ ko xewal Beyoncé ñëw def la même chose ak argenté moom finalement tu vois mm. tout parce que bu la wanee ginnaaw moom c'est vraiment transparent jiitalul dara tissu bi actuellement ñoom ñëpp moom lañ xewal ku ci nekk ak dem ak sa nit ñi dañoo abusé am na ñu dem bay euh, comparer Beyoncé ak Prince à New York kan moo ko seetaan sans boo xam ne yàgg na Lisa ki ci nekkoon princesse bi mun nañ xool photo bi par Samba moom la ñuy comparé ak Beyoncé parce que même coupe yi la même transparence mhm. am na benn robe bu mbéru wane léegi euh, mooy robe Rihanna bi mhm. donc robe bi je pense que moo gënoon marqué nit yi nekkoon ci Met Gala bi yëpp. Mhm. Euh, bu ñu mënee xool beneen photo bi ñu xool li ñu koy comparé ça a pris deux ans pour ñu defar benn pièce bi. ñu ci bëri omelette lañ leen robe bi jox parce que boo jëlee <laughs> jaune de huile ko ba mu jaune ba koy sotti exactement la même chose. am na beneen robe bu bu gën marqué nit ci mu sol. après elle au moins s'est couverte quoi. c'est ça. mais les autres les autres robes pour nous africains ou pour nous sénégalais à la limite elles ont été hyper sur leur tapis rouge. voilà franchement ça on accepterait on accepterait jamais ça au Sénégal n'est-ce pas Khadim. yi duñu ko nangu ah mais si il y a une ah. chanteuse qui a porté à peu près ça. il y a quelque booy xool Rihanna moo gën a rapproché wu si thème mu Chine bi quand même. avec non c'est que ñoom en fait seen définition wu Chine peut-être Jennifer Lopez am na dragon mais après transparence bi ça revient. ça fait des années ñoom ñëpp ñu koy sol. on dirait que ku nekk da ngay bëgg a sa bopp. pour que bu ñu paree ñu wax ci yow et ça marche parce que tout le monde parle de mais c'est trop léegi bu Caravaggio laa leen bëggoon woon parce que moom dafa mel ni flamme yuy génn ci gémmiñu dragon bi. Mhm. finalement bi ñu ko mixé ak robe bi ñu xool photo bi ci topp. Voilà, voilà. c'est ce que ça donne. C'est que ça. vraiment inspiré les internautes. Ah. omelette de carbonature Rihanna. c'est juste les robes qui ont marqué Met Bal 2015 donc je pense que Rihanna c'était elle la star du Met Bal cette année. on a parlé de ça réseaux sociaux une semaine ça le lundi dernier. voilà donc mu ngoog loolu la ñu on attendait les coups de cœur du lundi mais peut-être lundi prochain <laughs> ñu ñëwaat ci dépendra de ses humeurs de femmes mariées parce que jigéen ñi moom euh, am ne buñ fa tollee ci sëy dañuy leen indi seen ay humeur ay humeur yu lundi humeur yu lundi yu mardi nag du bokk ak yu mercredi moo tax tey mu ñëwee ni on te comprend de toute façon dañu la koy euh, <laughs> concéder alors celui qui nous a rejoint mu ngi tudd Dip je vais vous dire pourquoi il est venu ce matin ci euh, yeewu leen bi il a marqué plus d'un ci événement yu mujj yi bu daara ji ak euh, yeneen yoo xamante ni fekkee nañu ko on s'est rendu compte que Sénégal ndekete dafa bëri ay talent mhm. et que moom il en fait partie euh, à chaque fois boo ko séenee ci scène bi li ngay njëkk a mooy waaw ndekete talent yaa ngi fi et pourtant on pensait que talent yi ci ñoom Mam As la des ci ñoom ci waa PBS la des ci waa daara ji la des mais boy yi ils ont beaucoup de talent merci d'être là d'abord la première question Merci qui va sortir pour nos gens euh, nos téléspectateurs pour yéen ñii seetaan euh, ci suba gi kan mooy Dip. waaw merci euh, ci invitation bi euh, merci ñu toog ci plateau bi. Mhm. ak technicien et tout. Mhm. Dip sama tur la. Mhm. man je m'appelle Dominique Prera. maintenant sama tur laa jël xool nu mu koy abrégé. pour que mu sonné mu so moom sonal tonalité bu bu rafet quoi. mënoon naa def DP waaw mënoon naa def gudd wala ma def DP. Uh-huh. bon damay xool rek euh, deux kii yi nekk si kanam. après boo defoon DP dem di baay Port. voilà <laughs> après ma xool kii bon ma gis i moo ëpp si voyelle ma jël i bi def ko ci digg bi. d'accord ah man man bi may li dégg di pour man. deep anglais ah, waaw deep anglais. waaw D deux E P am na ñu koy foogee noonu mais ah. boobu. peut-être tamit peut-être sama son yi yenn saa yi da leen koy jox quoi. ok ñu foog yenn saa yi bu ñu def recherche noonu lañ may bindee quoi. ok mais dip sama tur la. alors que dip bi c'est du DIP. voilà euh, ci tur bi rek nga jël. Dominique Prera ci gën a bëri Dominique bi ak Prera bi quoi. sama tur bu gàttoon moom sama tur rek laay jël benn. Dominique kese. wala doo yeah Mr Doo wala dom wala dom bëri na wala doo wala doo wala penser à la musique quoi wala dom alors depuis lors tu n'as pas fait d'album euh, def naa benn mixtape. ok mixtape rek nga def ah. waaw mixtape bi def naa ko depuis le 26 septembre. Uh-huh. mu ngi tudd bés ni ki tey. Uh-huh. Euh, bon. moo tax ñu bëri xam ma. moo tax artistes yu bëri di ma invité seen événement. ah oui comme waxee commencement bi sànq. Euh, waaw ba tey mixé bi mu ngi en cours. def euh. nañ ay concert yu mag. Mhm. def nañ ay concert yu mag instant yi dañu région yi. parce que mënuñu yem fii kese. Mhm. ñu ngi tam dugg si école yi. Mhm. di def ay vidéo comme vidéo bi di daw nii. ok instant yi si loolu lañ nekk. alors est-ce qu'on peut regarder tuuti ci vidéo bi il va nous faire euh, benn playback laataa ñu jeexal yeewu leen bi pourquoi grand yi respecté ko c'est parce qu'il a beaucoup de talent Dip il et pourquoi pourquoi pourquoi gars yi respecté ko dama ciy ñëwaat encore ah, parce que ay peeram ñoom ñoo wax euh, ñu dégg parce que paraît-il dafay def du rap authentique c'est pour ça qu'on le respecte et on attend l'album parce que mixtape bi moo génn euh, est-ce que yaa ngi ci yaa ngi ci préparatif yi waa album bi en ce moment maa ngi job ak benn copain ci hmm. côté beat yi parce que hmm. bon constat boobu laa def ñun suñu musique dafa soxla ay beat yu bees quoi dafa soxla ay instrumentaux yoo xamante ni ñooy tax Euh, ñu am benn identité ñooy tax ñu am benn maanaam ñu am lu ñu mën a présenter feneen ko mm, mm, mm. instant yi si loolu laa gën a nekk. maa ngi préparé album bi côté. boobu ay beat yu différent voilà si côté boobu kese laa nekk gum maintenant maa ngi préparé beneen affaire boo xam ne. dina yombal attente bi quoi. parce que man su ma sañoon chaque chaque at damay génne dara quoi. super waaw léegi damay préparé benn maxi benn six titres wala sept. léegi dama koy joxe. en attendant gars yi xaar album bi. Mhm. waaw maa ngi si moom. super tu restes avec nous je vais euh, beneen invité boo xamante ni daf ñoo fekk si kooku euh, dafa bokk ci euh, famille boo xamante ni bu woyul sax ñu laaj ko ko xam nga Sénégal aussi dañu bëgg lool musique mandeng alors musique mandeng bi nga xamante ni bëgg nañu ko nag moom at mu jot dafay sargal musique boobu la nga xamee nii ci ay waajuram la woon ba tey muy Marietou Sissoko qui est en train de préparer son événement boobu ba tey ñu ngi koy waxtaanee ci télévision Futur Média alors Marietou euh, ñu ngi lay nuyu gërëm la euh, ci sa teewaay tey ci euh, yeewu leen bi samedi bi passé préparé woon nga ba waroon bokk ak ñun ci ndaanaan faf ni mu demee la woon ci programme bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak suñu xarit ci nga xam ni ñoo xëy di ñu seetaan ci yeewu leen bi. salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen sant leen mm-hmm. gërëm encore une fois ndax ñun mm-hmm. yéen ñu tax ñu am jom. Mm-hmm. ab Cheikh di la wax noo yeewoo. jàmm rek Mariétou di la sant di la gërëm ci mm-hmm. sa bi nga am ci Mariétou Cissokho mm-hmm. parce que yéen ñëpp respect ngeen ma jox ci mm-hmm. nuyu sa plateau bu rafet bi nga xam ne saa yoo leen yeewoo wax ak nit ñi ñu am leneen lu bees ñu yeewu alors ñu ngi dem nag ci guddi goo xamante ni yaa ngi ko tuddee nuit euh, du mandeng sànq ma wax ni euh, fa nga bokk boo euh, deful musique mandeng ñu laaj la ko ci ban famille nga bokk Mariétou waaw man Fat Sakho mooy sama maam bokkoon ci jigéen bi nga xam ne Mhm. def na carrière bu sori ci ensemble instrumental Daniel Sorano. voilà alors c'est dommage que dégguñu la dégguñu la bi dégg dégguñu la bu bu baax euh, ñu xoolaat micro bi pourtant tàkk na toog graw bien sur le plateau tu de régler le micro. ah pourtant ñu tonton mag nee dañu ngi koy dégg pourtant mon ami toog ah tu peux pas passer à la télé ah viens prendre le micro prendre da ngay am am am am non la télé c'est que de la télé y a pas le feu am micro bi <laughs> am ñu ngi koy dégg ñu ngi koy dégg je pense ah voilà c'est le technicien son moom laa leen bëggoon woon tuuti ngeen gis ko uh-huh. waa macha allah si seen liggéey bu xarañ rek moo tax ngeen di waaye xam nañ ne xel seen seen yéene ak seen xalaat romb na fii ah, ah, ah. mooy comme ni ma duggee léegi rek musique bi li tax ma def ko mooy sama maam mm-hmm. foo Fat Sakho Fat Sakho nekkoon ensemble instrumental mm-hmm. liggéey carrière bu gudd ci biir ensemble bi mm-hmm. retraité fa d'accord bokkoon ci jigéen yi nga xam ne aussi ñoo njëkk a composé musique moderne quatre femmes dans le vent quatre femmes dans le vent moom ak Fat Thiam Samba Khady Diouf ak Fat Talla Ndiaye waaw naa léegi am na époque boobu amul woon benn jigéen bu mën a taxaw ne dina def musique moderne. parce que famille yu bëri ñemewuñu ko woon. ñemewuñu ko woon parce que dañoo waxoon ne que mag yi duñ ko daan déglu. Mm-hmm. kon ñoom li ñu doon def mooy tradi professionnel bi nga xam ne moom la mag yi bëgg mhm. que bu tëggee da nga daan ñëw ci buntu bi doo mën a jàll dégg naa ñoom bu njëkkaan sax bu tàkkusaan jotee daan nañ taxaw ci buntu euh, boulevard de la république bi noonu nit ñi dem di leen aduler comme ni yéen woykat yi léegi ni ngeen xewee ñoom ci jamono boobu noonu woon ñëpp di leen fekki di leen seeti euh, mm. Adja Fat Thiam Samb ñu ngi koy mm, nuyu parce que man saa yeewoo fajar gi euh, daf ñuy seetaan parce que ndaanaan la moom la ñu ci album fàttaliku bi woyu Ami Collé bi moom moo ko woyoon l'époque sa maam tamit def fi lu ne mm-hmm. lan moo tax nga indi euh, concept nuit du Mandeng. voilà grande nuit du Mandeng ak Marietou Sissoko mm-hmm. dafa nekk loo xam ne dafa daf ma marqué mm-hmm. ndax nee naa Sénégal man sama maam moo tax ma woy man dama bokk ci famille géwél ak ngeeño mm-hmm. parce que Fat Sakho moo jur sama yaay mm-hmm. sama yaay musul woy te géwél la sama papa ngeeño la kon dama bokk ci famille géwél ak ngeeño def musique li tax ma def ko muy moom santaaneem ak bëgg-bëggam balaa ma fiy jóge dinaa leen sant ngeen defal ma li ma bëgg mooy ëllëg si biir su ma fi jógee sax su ma dee dinaa tëdd mm-hmm. mooy que na ngeen woy foo leen toll wala ngeen def musique foo leen taxaw ñu ne kii setu Fat Sakho la waaw yoon boobu la Mariétou jël ba taxawal groupe bi nga xam ne moo tudd FS ma tuddee ko sama maam mm-hmm. liggéey ci trois albums yoo xam ne mu ngi sur le marché mm-hmm. chaque année ma rendre ko hommage tuddee ko Grand Nuit di Mandeng pour ñi mu amoon ci ay xarit ñi mu amoon ci ay soppe ak génération tey bi ñu xam ne la fi Fat Sakho bàyyi woon am nañu ko yore am na ñu ko mën a yóbbu mhm. te ñu ciy jéem defe naa egguñu fi mu bëggoon mais mhm. ñu ngi ciy jéem ay pas yoo xam ne mhm. bëgg nañu Sénégal ak Afrique ak monde bi Mali bi mu jógee ñu xam ne Fat Sakho ak njabootam vraiment am na lu mu leen jàngal balaa muy def. at mu jot dafa am loo xamante ni particularité lay nekk ci grande nuit du Mandeng. Euh, ren euh, lan moo nar a nekk euh, particularité guddi gi ndax waxatuma Mandeng yi rek wala wala wala wala bambara yi rek wala saraxule yi rek ñëpp nga koy préparé lan lan lan mooy xaar sénégalais yi incha allah Sorano. waaw lii xaar sénégalais yi mooy nee naa ci yenn plateau yi keroog maa ngi koy wax fii encore. Mm-hmm. parce que soo gisee mareetu bi yoon nit ñi xam bu baax Grande Nuit du Manding mu toll ci mhm, àdduna mhm. yàlla TFM mhm. ñoo ci jàpp gunge ma ba ma egg fii ci dernière étape bi kon dama leen koy santé mais particularité bi ci nekk mooy dama formé benn association tudd lutte contre violence faite aux femmes mm -hmm. de violence moo tax sànq di ngeen di wax mu am lu ma marqué parce que maa ngi dégg seen si sa si sa plateau bi ñuy wax benn wax bu am solo mooy mariage précoce mhm. ëmb na yëpp nag lépp luy violence faite aux femmes mhm. du violence nekk rek jigéen dafa nekk jëkkëram da koy dóor wala dafa koy xas mais li jigéen di mu daj ci biir metti mhm. bu mu munta doon muy jaar loo leen fi ñu warul jaar maye leen heure bu ñu leen mayul mayee ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi ci biir violence mhm. gis nañu koy femme juriste yi ñu ngi taxaw mhm. mais artiste taxaw défendre leen nekk seen porteur de voix mhm. ma ne Mariétou Sissoko lu tax muy toog di xaar ñu koy woo ci lu mel noonu damay jóg taxawal boobu ba léegi nag boo gisee waxuma ci woon c'est parce que amaguma woon dara lu ma leen ndax booy def liggéey te amul kayit bi nga xam ne ñooy lay firndeel naka sa liggéey war nga ko mën a def waroo cee mën a sori kon reen nag jot naa sama këyit mhm. mooy récépissé bi may woon nekk sama association taxaw na mhm. ma war ko lancé ci événement bi mhm. mooy li gën a marqué ci biir événement bi ñu ci des nag xam naa dañuy bàyyi ba gars yi egg foofu pour ñu mën a xam li nga xam ne moom lañu yaatal ci biir voilà alors euh, euh, defe naa ni jot na itam euh, en plus de association boobu balaa ñuy tàggoo peut-être di nga ci wax tuuti parce que lu am solo la pour surtout jigéen ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal entrée beeg numéro réservation yi parce que saa yu événement amee nag ku yéex a jóg da am problème. waaw surtout ren bi nag moo ci raw ndax nee naa leen billets yi dafa am kilifa boo xam ne bëgg a jàppale marée bi. Mhm. jënd na lépp lu xam ne moom mooy ticket bi parce que loolu la def pour participation am xam na ne Marietou amul doole mhm. aw ma sponsor aw ma partenaire bu dul ñi ànd ak man comme SM Simaga mhm. comme Futur Média mi nga xam ne macha allah Simaga moom ku baax la moom moom moom day moom moom ku mën a jàppale nit la waaw Khalifa Babacar Sall uh-huh, uh-huh. Euh, vraiment Mimi Touré mu baax mi Duma Dieng Jaxate mhm. ak ñi nga xam ne macha allah bëgg nañu musique Mandeng taxaw bëgg nañu musique Mandeng am yoon ñu jox Marietou doole pour mu mun a dem parce que en tant que jigéen nga mun a produire sa bopp wala nga mun a ñafel bopp pour taxawal guddi yu day nii wala ngay def say mhm. voyage mhm. dafa yombul te ànd partenaire wala nga am mhm. benn staff boo xam ne moo lay jàppale mais ñoom won nañ ma nekk ne lépp lu may def te muy yoon bu baax pour suqali Sénégal la ñoom dañ ciy dugal seen loxo ñoom amatura sin si gars daal ñëpp jàpp nañ ci aaru na ja sama xarit sama géer kon yéen daal lépp yéen. voilà donc guddi gi guddi guddi sénégalais yëpp la. Euh, lu tax nga tànn mercredi. pour def ko. waa parce que dama jëloon benn date boo xam ne chaque année dama koy def ci sama calendrier annuel muy 11 avril. Hmm. bi ma jëlee ba ci digg bi ma am benn euh, changement. ci hmm. diggante bi. Hmm. mu nekk ñàkk déggoo tuuti. bon date bi keneen ñu jël ko jox keneen. bon ma ci doon wax sax après gars yi. vraiment ñu ne ma mareetu jarul wax loolu mooy mooy li gën ci yow kon bàyyil nga xool beneen dat dinañ la jàppale ñu ngi sa ginnaaw mhm. ba tax vraiment waa Soraan na gis nga que dat bi ñor na ma neex na ma parce que sama maam laa ciy sargal mhm. te sargal boobu ki may sargal moom foofu la doon liggéey bokk na si artiste yu njëkk a inauguré Sorano mhm. kon defe naa kooku bësam ñoom duñ ko seetaan mu yàqu ñu xool ne que si seen agenda am na benn jour magique boo xam ne gars yi xëy na duñ koy faral di gis mais mercredi day nekk 13 mai. Mhm. la lendemain férié la sanction la. voilà pour nit ñi xam ne que bu ñu ñëwee du ñu mhm. xëy liggéey. loolu la loolu laa bëggoon nga précisé ko parce que jeudi bi férié la. voilà kenn du kenn du liggéey donc mercredi. Sorano dina mel ni samedi soir. waaw loolu de laa bëgg ndax ah. nee naa moom ku ñëw. man moom kenn du ma fa jiitu moom. ñu jox waaw ñu leen may. Uh-huh. man moom kenn du ma jiitu moom. doo mën a dugg yow. moom kenn du ma jiitu parce que mercredi dina mel ni samedi. macha allah uh-huh. a danga ma jàppale amuleen sax sens interdit pour dugg wallaahi wallaahi dama ki jox ku nekk cër ku ci mhm. mel ni Youssou maa jigéen Ndour mhm. jox ci euh, macha allah Bouba Ndour cër jox ci Ndiaga cër jox la ci cër jox ci mhm. Boubacar Diallo cër ak ñu fi nekk yëpp ñoom Josephine madame Ndiaye déggeen baa baabu dégg ngeen ko ci biir ndax dafa nekk ay jigéen yoo xam ne man damay bëgg jigéen bu am exemple lañu ay exemple lañu loolu laay wax mi mu turé di ko wax Juma Jang Jaxate di ko wax ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoom vraiment maître Tamaro xolam neexul mais dinaa ko tudd ndax sama xarit la macha allah ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi jàppale mareetu te seen mm-hmm. jóg seen wax jógul mm-hmm. ku ci mel ni ñoom Annette Coulibaly Ndeka mm-hmm. vraiment ñoom ñëpp jàpp ci bés bi kon man dama naan lu tax duma am maat yokkaat beneen paax ci jom ak fulla loolu ci loolu la loolu laa bëggoon attirer attention aux téléspectateurs yi sax li tax man Marietou ko neex ma mooy jom ji mu àndal c'est-à-dire euh, mu neex mu naqari dafay góorgóorlu tout le temps di wane ni moom bëgg a def amul ñu bëgg ko wala ñu bañ ko et suivre ko pendant des années mm-hmm. gis jom ji nga xamante moom lay sàlloo cest à day dem euh, di dugg euh, mooy def lii daa bëgg def lii day génne album mm-hmm. te loolu pour nga pour nga pour nga def ko fii ci Sénégal di nga am fooy toll da ngay bëgg a bàyyi sax mais gis naa tout le temps nga am euh, mm-hmm. jom joo xamante ni moom ngay àndal a chaque fois ngay organiser loolu moom dañ la ciy félicité di la ñaaxaat itam nga continuer di mel ni nga mel bu neexee nga amal moo tax defe naa télévision Futur Média booba tey muy jàpp ci événement bi kon rendez-vous bi mercredi la ci guddi insha allah mën nga fàttaliwaat peut-être numéro réservation yi pour suñu xarit yi nga xamante ni ñoo bëgg a a am ci place yi ku soxla rek réservation yi moom ku ko deful à de tey wala suba defe mm-hmm. naa mercredi doo ci mën a jot mm-hmm. muy li fa jot a des vraiment ku woote ci 77 627 24 28 di nga jot ñu jox la sincèrement dañ la koy nettali te bëgguma ñu nettali ko kenn dama bëgg ñëpp ñëw mhm. xam ne que bés bi ci la ñu bokk mhm. ñoo jur Mariétou mhm. samay frère samay sœur samay doom samay tante samay xarit na ñëpp ñëw Sénégal moo xewle sama mbokku saraxule nga xam ne ñooy sama côté papa maare mu soninkoo sama mbokku bambara ya xaasonke ñoo xam ne ñooy sama wàllu yaay mbaa dir xaasongoolu ba manankaan folaw mbébéede wele la maa ngi woo ñëpp ku lim làkk yooyu rek laa jot jàng bi sax dégguma ko <laughs> maa ngi bàyyi. français bi français géwél waaw français géwél ngeen xam ne daal <laughs> eh. lu ñu lu lu ñu woote rek doyul eh. lu ñu woote doyul parce que sincèrement eh. Sénégal la ñu am Sénégal la ñuy tiitaroo mm-hmm. te Sénégal réewu teraanga la réewu liggéey la réewu jom la nee naa damay jàlle sama message mm-hmm. di wax xale yi di dugg ci ngir yàlla mm-hmm. te nañu bàyyi xam ne que Sénégal loo soxla ay que mu ngi fii mm-hmm. Mm-hmm. nañu ñafee mm-hmm. wala ku ci war a dem nga xam ne yàlla yóbbu na la nga dagg sa visa dem ku ci warul dem it nga jàpp ci yàlla toog ba yàlla woo la nga dem moo gën ñuy dugg ci ndox bi di jooyloo waajur yi di jooyloo mbokk yi xarit yi ku dégg bato bi temps yi li am ci euh, ci dëkku arab yi wala lii bi nga xam ne que am na yoo xam ne dara jaru ko te nee naa man toutes sortes de violence faites aux femmes faites uh-huh. dama koy xeex uh-huh. ndax femmes yi ñoo jur doom yu góor yi di dugg ci ndox bi uh-huh. ñu ngi woo ñëpp ngeen ñëw ndax thème bi ñu fa nar a abordé rëy na torop di fa jagleel benn tableau boo xam ne sud daf ma daan rendre dooleem di ma jàppale bi maretu commencé ba léegi yéen mënuñu leen fay parce ndax lépp lu ñu def mu feeñ rek yéen la sud bi dama ko fay décorer benn tableau. Mhm. pour wane ne que Marietou amagul doole. Mhm. pour décorer ñi ko mën a jàppale. Mhm. mais dina commencé ci ñi nga xam ne moo dooroon ak ñoom. ba keroog muy léegi nii di nga ñu woyal euh, mais laata boobu dañuy bàyyi Mouhamed Ndiaye préparé wu on en profite juste euh, pour jël euh, ñaari xarit yoo xamante ni peut-être ñu ngi ci téléphone bi juste permettre à Mouhamed Ndiaye mu ñëw pour revue de presse bi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05. Euh, mareetoo ngi woy euh, léegi nii ci euh, kanam ñu xool ku nekk ci téléphone bi laataa ñu dem ci revue de presse bi rapidement 9h47 mooy doog a jot allo allo allo kooku dem na jox leen ma ki ci topp rapidement 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 balaa mareetu si soxo di ñu woyal allo allo oui salaamaaleykum maaleykum salaam Cheikh na nga kooku ah yow la. Alassane. Alassane Samba Diop. <laughs> waaw. ok Alassane Samba Diop fooy wootee RFM. <laughs> waaw RFM d'accord <laughs> Alassane Samba Diop ñu ngi lay nuyu bu baax tey ban émission ngay présenté. tey yeewu leen lay présenté tey. Alassane nag tey ma ne Pape Cheikh numéro 2. Diop pourtant. Alassane Diop dëkk fan. Nord Foire. naka waa Nord Foire. ñu ci jàmm. yow looy liggéey Alassane Diop. man. Hmm. Euh, téléopérateur. lan ci. téléconseiller. ah téléconseiller d' accord téléconseiller nga. waaw maanaam da ngay jox ay conseil ay télé télé yi ngay dugg ci kër yi di leen di jox conseil seen télé yi c' est ça. <laughs> téléconseiller tey liggéeyoo xanaa. Euh, non non liggéeyu mu tey. d' accord buñ la mayee vingt cinq mille koo koy jox. Euh, xanaa maire bi. maire bi nga koy jox. <laughs> waaw jeex na kon yeewu leen may na la vingt cinq mille pour nga jox ko maire bi. <laughs> kontaan naa ci merci bul raccroché comme ça ñu jël sa numéro téléphone nga mën a jot ci xaalis bi nu mu gënee gaaw. <laughs> ay ca nag keneen ñoo ñu teral ko 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 tutu ñu ngi lay nuyu moom itam mu ngi àndandoo ak ñun ci suba gi euh, tutu saf loxo allo allo allo. kooku jotuñu ko ñu xool keneen 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 est-ce que Mouhamed Ndiaye mën na ñëw léegi taxaw allo allo. bu leen ko xëccoo def leen ko ndànk 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 allo. allo. oui. ça va. sant kooku. Omar Diouf. naka. Omar Diouf. Omar Diouf. waaw Omar Diouf Fall. ah. bokkuloog Omar Diouf Fall. déedéet Omar Diouf rek. yow foo dëkk. man Touba la dëkk parce que laay wote. ah. Touba la dëkk waaye parce que laay wote parce que. Touba nga Touba nga dëkk mais parcelle ngay wote. waaw ah. d'accord Omar Diouf naka waa parcelle. ñëpp ñu jàmm. ñoom ñëpp ngi jàmm ñoom yow yow ban ban nga yow tey. ah. ban nga eh, ay ban ay 4 sa père sa père. ah sëtër nga yow est-ce que est-ce que gis nga ni nga ma dul déggee yow boo dee wax kenn du la dégg de Omar. non maa lay dégg de. yow la ngay dégg Omar. <laughs> tailleur. <laughs> tailleur waaw tailleur bi de wax nga ko nag tailleur d'accord euh, ñaata nga bëgg ñu may la tey ci yelween bi. non lu ñëw rek baax na. lu ñëw rek baax na ah. est-ce que 25000 dina baax. c'est bon. c'est c'est très bon. oui d'accord bu raccroché comme ça ñu jël sa numéro téléphone merci d'avoir appelé Omar Diouf bu keneen nekkee ci téléphone bi ñu jël ko 88 628 wala 88 ngi tege yéen la ñu ko naa def ñu ngi sant bu wér waay ça man maa ngi tudd Yoro Ba. yow de bokkuloo ak Omar bi nga xamante ni lay waxee mais yow noonu ngay waxee. donc différence bi c'est la lenteur et la rapidité. naan nga tudd yow. man man maa ngi tudd Yoro Ba. Yoro Ba yow fan nga dëkk Yoro Ba. maa ngi dëkk Pikine Icotaf. pi pi waaw. d'accord naka waa Pikine Icotaf. ñoo ngi si jàmm alhamdulilah. yow lan ngay liggéey. man maa ngi liggéey bëccëg. yaa ngi liggéey métier. waaw d'accord kon euh, dañ wax ki yaa mu ñoo defal la fiche mais ban métier. ah. ban métier ngay liggéey. damay jàng oto. ah da ngay jàng oto. ouh il est parti maa ngi liggéey métier ah <laughs> il l'a pas dit malheureusement. yàlla baax yow léegi teg yéen xanaa RFM bokk leen ci kaaru ndekki bi kaaru ndekki bi dafa jaar. <laughs> oto sali bi du fa jaar xanaa damay laajte rek parce que ñun am nañu oto boo xamante ni sali madame jaxate moo koy dawal xanaa du jaar foofu du jaar RFM amagu xam naa boo fa jaaree Babacar Fall ak Lisa Dior lekk lépp ak <laughs> non Ablaye Diop man <laughs> Alaaj Assane Gueye nag gisoo ni mu toll moom day noggatu xale c'est vrai RFM ku fa yóbbu lekk Assane Gueye da lay woo bureau la noggatu boo may lee ma dàq la wala jox la mise à pied sama classe gi bëggul kenn dàqu leen je te <laughs> saa yi ba fa demee daf may woo ci bureau jox ma balaa ma lay dàq rajo bi bu ko defee li ma war a lekk yëpp lekk yëpp moom laa koy jox. man rajo bi xiif la fay indaale. ku la ko waxee ku la ko waxee tey buuba may na ma 10 000. yii takku téere lii kay téere laa koy def tu sais pourquoi mu may ma ah, dix mille accident de travail bu moo am sànq bi journal bi di jàll <laughs> et je risque de porter plainte ayca <laughs> ma ba max la jërë ngeen jëf. dañuy ñëw ci observateur ci xëtam mu njëkk voilà observateur ci xëtam mu njëkk mi nga ko ñëwee euh, wàllu politique ak lu aju ci parti socialiste gi nga xam ne yéen kaay bi xëy nañu xamal ne ñoom seen bëgg-bëgg daal moo di Macky Sall mi ne day organiser ay référendum atum 2016 ngir xam ndax mandat président bi dañu koy. bàyyi sept ans wala ndax dañu ko yóbbu cinq ans waa parti socialiste li ñu gis observateur nee nañu ci seen dajama mooy dafay sori li ñu bëgg moo di daan waa parti socialiste amuñu ànduñu ak gis-gis ki nga xamante ne ji moom moo di président Macky jëm ci wàllu référendum ñoom nee nañu day sori li ñu bëgg moo di 2015 ci ñetti weer yi nga xam ne ñoom ñoo mujj nañ ci amal lii di référendum bi euh, le témoin moom it daal ci dellu si mais moom leneen leneen wax mu di waa LD gi nga xamante ne ji seen bëgg-bëgg ak seen yéene mooy daal fexe euh, ba ñu xam nan la ñuy àndee ak président Macky Sall waa parti socialiste nag yéene kaay bi nee nañu léegi la ñuy àndee ak Macky Sall dañu koy jàppale ci seen ndaje ma la ñu gënoon a siiwal loolee Soleil dikk ak ñun ci moom président Macky Sall euh, ci xëtam mu njëkk ak coow li nga xam ne am na ci ñaari junniy soldat ak téeméer ñu war a yóbbu ca Màkka ku nekk di ci wax président li mu bëgg mooy buñ ci dugal wàllu politique nañ nga xam ne l'armée Sénégal armée nationale la bu ko kenn politique yéene kaay bi nañu délégué de quartier ànd nañu ci dogal yi nga xamante ne ji président Macky Sall jël na ko ñu jël populaire ni dikk ñun ci waxtaan woo xam ne seq na ko ak Moussa Sy mooy maire parcelle moom Moussa mi ngi xam ne ne jamono ji daal bokkul ci benn parti politique euh, soxlaatul sax di seet avenir ci wàllu politique Moussa ne fii ci Sénégal parti yu bari amul démocratie amul sax benn parti boo xam ne démocratie am na fa te parti bu ñu wéyee noonu ci faatu la ñu jëm leneen loolu wax na ko di wàllu transhumance Moussa Sy nañu li nga xam ne moo di transhumance fu ngëm-ngëm nekk fu ngor nekk mënul ànd ak transhumance ku xam transhumé dëgg maître Ousmane Ngom mi ngi ci xët mu moo xamante ni doon mu di yéen a ngi dugg moo wax loolee ñu wax ci leneen mu di grève bi nga xam ne tolnikati mbali di nekk woon nañu ko fan yi yéen a kaay bii di Walfadjri xëy ñu xamal ne am nay loraange yu mu jur yan loraange la journal bi xëy ko ci xëtamu njëkk moo di mbalit mu bari eh, ci diwaanu Dakar li yéenekaay bi wax moo di Dakar capitale de la saleté maanaam fi la saleté eh, sampe grand place di ñu wax li indi loolu moo di guerre boo xam ne am na ci diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo mbalit mi lii la ci grand place wax ñu dem ci eh, sunu lamb mi xëy ñun ci tournoi TNT Ama Baldé ak li mu def guy geeg li mu def yéenekaay bi nañu Ama Baldé wan na le géant du Bawol mbooloo ne ko maa la gën a doon géant doon daanu daanuwaat ki daanu daanooti daanuwaat Modou Ndao Tyson ci observateur yéen kaay bi na ñoom ci waxtaan woo xamante doon nañu ko amal face to face diggam ak Gris Bordeaux moom Tyson tontuwaale na fa ki nga xam ne moo di mbay Guèye mais tontu lu sorewul ndax daal dane du ca wax ci gàttal li wolof naan bu la mbaam wéqee nga wéq ko ñaari mbaam ngeen pap loolu noonu la Tyson tontu mbay Guèye jërëjëf Mamadou ko Ndiaye waaw kay <laughs> yàlla baax na boo bàyyi loo fekk lekk doo jóg ci li la dal noonu dal la ñu ngi lay gërëm bu baax ca kanam daañu àndaat ak yow ci euh, revue de presse bi ci jotaayu xibaar yi sinon mun ngeen amaat replay yu euh, revue de presse bi ci yeewu leen bi ci YouTube ci suñu chaîne bi merci à tous si Sissoko euh, yow la ñuy tëjee tey yeewu leen bi diip ñu ngi lay gërëm yaa ngi préparé maxi bi dina génn kañ euh, peut-être en septembre wala coté fin d'année bi rek. d'accord d'accord mais on te verra ci seenu seenu gars yi. waaw tout le temps waaw comme d'habitude parce que man. voilà ñëpp laa amal link quoi. voilà ça va quoi. ok en tout cas ñun euh, bëgg nañu li ngay def et que euh, xam nañu talent bi nga ci am d'ailleurs ci daara ji bi keroog samedi on en profite d'ailleurs pour féliciter daara ji ci li nga xam ne def nañu ko keroog grand théâtre il était de la partie lam fa def di ngeen ko mën a seetaan d'ici samedi ci télévision Futur Média Alfi euh, suñu ay croquants. pare na Pape Cheikh jox naa Mouhamed euh, dégusté donc ma leen di souhaité xanaa. ah moo dégusté tey kon ñun duñu dégusté. ah kay des na Pape Cheikh bëri na am nay dégusté pour bi <laughs> je vous souhaite une bonne dégustation Pape Cheikh et à demain incha allah merci Maimouna lundi prochain dinañu waxtaanee comme. incha allah Pape merci et à lundi. merci ay dara ba suba. Rokiyatou d'accord <laughs> ok. <laughs> diis aussi ba ëllëg. et eh, mun naa joxe carton rouge. ayca demal manager bu daara dama la woo ba pour backstage concert bu mel nii waruñu ko bàyyi. carton rouge pour Assane carton rouge pour Assane quand même. merci alors Marietou yow yaay tëj tay yeewu leen bi nga euh, play bagal ñu ak way bi bu ko defee ñun tamit ñu tàggoo merci tonton Mack qui a dirigé toute l'équipe de production Bouba Ndour pour la production exécutive de cette émission ñu ngi leen di gërëm bu baax jox leen rendez-vous suba dès 6h45 pour yeewu. pour la première fois on finit à l'heure Mariette moo à l'heure on est le 11 mai yeah oh, Aïta c'est ak Mariette Sissoko